retrouver comme tous les matins bienvenue dans l'avant-première de la mi-journée ñu ngi leen di a baax te di leen ziar a nekk ci réew mi bitim réew di wétali ko 7TV télé bi ñu niru ba noppi di ñu dajale ñëwaat nañu ni ñu koy defee itam saa su ne la team est là ñu remercier l'équipe d'Allo bu baax a baax di leen ziar rek ni ñu koy defee itam saa su ne nous sommes Albert doyen bonjour bonjour Seydou maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di nuyu Ada Adama di nuyu Birama aussi di nuyu waa kër gi di profiter aussi nuyu am mbégte dajawaat sur le même plateau ak suñu invité bi. Mhm. doyen Mamadou Sy Albert à côté Adama Fall moo def. soxna Maria sant yàlla. waaye nga am di am plaisir di teel a ci kër gi. nuyu doyen. Mhm. di ko ñaanal di def mhm. bàyyi ko xam-xamam xelam moom. gunge. amiin amiin ay at yu bare bare bare bare bare bëri. di nuyu Birama di ko souhaiter bon repos. congé mm. bi nga xam ne def na. di nuyu ñi nga xam ne ñoo safoor di ñu seetaan di nuyu suñu gan. jërëjëf Adama Fall la noonu kon xam ngeen ko Birama mu ngay noppalu fan yii sax dama koy off dootuma ko tudd ma koy bàyyi. waaw bëgg a xulóog moom mooy. non non non bul xulóog moom. waaw comme ça ñu am kii quoi. non non non nañ koy nuyu rek. Ah. moom moom su toogee du ñu nuyu. moom du nuyoo nag. mais ñun man nañ ko nuyu rek. naa ko nuyu Birama maa ngi lay nuyu bu baax a baax Camara avec C. <laughs> ñu koy bu baax a baax alors suñu gan mu ngi noonu Assane Ba la ñu koy wax membre du comité directeur du PDS c'est un plaisir ñu retrouver ko suñu grand suñu xarit suñu ñu ngi lay di la dalal ci 7TV. Euh, maa ngi lay nuyu bu di la gërëm ci invitation bi. jërëjëf di nuyu ma sœur Maïmouna Faye. Mhm. rajo bi. télévision bi wax dëgg yàlla suñu kër la hmm. non seulement yéen dañu dëkk nekk ay wëlër nekk ay xarit waaye itam ñu bokk commune moo tax ma fonk seen sective wala mu ci demee sax rajo hmm. di nuyu doyen moom Salbert grand chroniqueur que je suis beaucoup avec attention d'ailleurs hmm. di nuyu mon jeune frère ak Adama Fall Adama Fall <laughs> Adis bi lay bañ ma maa def exprès di ko ko di ko duul euh, noonu. moom tam sama wëlëre la. waaw ah. daje nañ si ay plateau yu bëri wax dëgg yàlla. Mhm. nekk un militant aussi de <laughs> connu. Mhm. je me je comment a-t-il fait pour être chroniqueur. sopp rek c'est extrêmement c'est c'est loolu xam nañ fa ñu waxtaan si loolu. waaw ci en off quoi. en tout maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen balu àq. jërëjëf di génn ci weeru koor bu am solo. Mm-hmm. yàlla suturaal ñu. Mm-hmm. bu communauté islamique bi yëpp bokk na benn bés waru ndox te loolu jafewoon la. ñu génn tam ci carême suñu mbokku chrétien yi. Mm-hmm. yàlla suñu borom boole ñaari. donc ñu ñaan yàlla suñu borom yàlla def lu ñu jàmm. yokk wér gi ak kattan. mu ngi noonu grand euh, seen baax moom la dalal tey fas yéene waxtaanee actualité ni ñu koy defee saa su ne mais avant comme fait tous les matins nous sommes le mercredi 17 avril dañuy daal di xool li xam ne moom la yéenekaay yi xëyee tey jile bu ko defee ñu dellu si waat si c'est bon du côté de la régie ñu daal di dem xool li yéenekaay yi xëyee ayca ñu tàmbale ak le témoin les enjeux d'une visite de Diomaye Faye en Mauritanie. Mauritanie diplomatie. waaw ouais, après le conseil des ministres d'aujourd'hui day waaw par rapport ak mooy loolu xëyee tey. Mm. moo gisuma ci suuf. ci suuf. pour la réalisation du jub jubal jubbanti. Mm-hmm. mooy visite la visite du premier ministre au niveau du building administratif. Mm-hmm. wax na ci te moom la xëyee tey. ñu dem ci bi ci des. Il doit voir toujours mu revenir sur la sur la mission du chef de l'État. ma la nga dem ah. waaw. yow yaa yow yaa koy def. defal ma nga dem defal. oui yéen Adama Fall mii est dañ kenn du wax ak moom. <laughs> xam nga bët yi dafa baaxul sa bos moo baaxul. yow mii la say bos baaxul <laughs> maa ngi nii jàkkaarloog moom. ayca le soleil Dakar Nouakchott un mariage de cœur e de raison waaw ça moom c'est bien de le dire le soleil donc euh, y a aussi euh, Bathily di démissionner. on va y revenir aussi ñu dem ci beneen xool ça c'était le soleil Sud Quotidien Sonko un entre en action c'est le gouvernement quatre hommes un état ouais. Ouais, Léopold Sédar Senghor de Senghor à Macky Sall Sud Quotidien qui revient sur ça ñu dem ci beneen un fast track laa koy def de source à l'heure de la ponctualité Sonko auditionne deux DG. waaw ah Adama comme say bët baax na waxal. Euh, Ageroute ak euh, euh, ki nga xam ni moo moo tabax. moo tabax bi waaw building bi. ok. Mesut ah. li ma naqaree tey mooy nañ ma ko génne fii. Walf Quotidien. Walf Quotidien. gros risque pour Sonko. Walf loolu la xëyee déclaration de politique générale waaw. et ah. motion de censure. ok. souveraineté alimentaire Walf mu ngi ciy dellu si waat le dilemme du gouvernement. fréquence des AVC waaw loolu moom problème de santé la ñu ngi koy wax les femmes et les enfants les nouvelles victimes. bu njëkk dañu doon wax ne on est toujours sur Walf ñoom dem nañ regard hmm. ok. l'argent sale. regard le gros coup de filet de la douane waaw mooy les billets noirs la. Hmm. ok on parle aussi du président Macky Sall ñu dem ci beneen. Vox Populi. plus de cinq milliards de francs CFA en billets noirs. saisie à Goudon. Mm -hmm. Le nouveau président. Mm -hmm. Le de solution. Ok, ça c'est une contribution. Ces chantiers qui attendent le ministre de la Justice. Bonne gouvernance, corruption, détournement des deniers publics, entre autres. Vox Populi moo ñëw ci loolu. ñu enquête. passeport. Ouais, passeport diplomatique entre fantasme, réalité et dérive. D'accord. Première visite officielle du président Bassirou Diomaye Faye, les enjeux d'une première sortie symbolique. On reparle de douane qui a frappé au grand coup. Et le président Abdoulaye Bathily qui démissionne. loolu moom dinañ ci ñëwaat doyen fu ok direction générale de la police nationale des changements annoncés à la tête de la police ah bon pressenti à la direction générale de la police nationale avec euh, Amady comme adjoint pourquoi Diomaye Faye est sur les pas de Macky et Wade politique diplomatique de bon voisinage reconversion et revoilà la paire <laughs> avec euh, Karim Fofana et, et entre autres Youm et Mansour ok ça c'est l'observateur ñu dem xool beneen la tribune qui a trahi qui ñoom ils sur euh, le clash entre la est-ce qu'il y a clash mais la ah mais c'est ce qu'ils ce <laughs> ce qu'il y clash c'est la grande question il y a Bara Dolly dans un autre journal qui en parle un clash entre Macky et Amadou qui a trahi qui pourquoi la CPM est passée de la position d'incontournable à celle de banni. Ah ouais, entre le report de la présidence et l'exploitation des ressources gazières. toog muy dox <laughs> en marche boobu moom beneen fait divers la. Kër Naar Kër Naar bi mooy Xbet. Xbet ah, bi ah non ñoom suñuy suñuy partenaire la. Ah. ñoom suñuy suñu bokk nañ ci suñuy partenaire ci tele bi graaw Naar bi daal lañ ko tuddee am na ku ci ku ci ku ci ku ci perte 4 millions. libéraux gauchistes et théoriciens de la troisième fois les nouveaux visages de l'opposition boobu ban journal bi ci topp l'info c'est l'info qui revient sur et on a Amadou Ba et Karim Wade ah Assane Ba est là mm-hmm. dinañu ci wax et on va voir nag bi yoon na xanaa dinañu wax kañ la Karim di ñëw <laughs> euh, Patte d'Oie aussi am na am na am na am na jaxasoo daal ci centre commercial bi ñuy bëgg a def foofu centre commercial euh, Sokhna Wallu Mbacké les commerçants les commerçants s'opposent à l'implantation d'un supermarché ok envoyé spécial Macky Sall reprend du service pour Macron pèlerinage catholique euh, waaw aywa ñu dem L'As quotidien le supplice des démoralisés démb nag moom problème bi coow li bëri na trop trop trop mm. médecins yi génn nañu wax yooyu euh, visite du président ba Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie le gaz et le pétrole au menu boobu c'est quotidien ñu dem feneen moom lañuy ñuy tëjee sax d'ailleurs Rewmi quotidien yi effectue sa mise en train on parle de son nouveau poste donc mu ngi noonu loolu yéen kaay yi xëyee tey ci lañ merci la régie je pense que jeex na merci beaucoup mu ngi noonu doyen Mamadou Sy Albert tey loolu la journée yi <laughs> disons que am na quand même peut-être la première mois visite euh, président Bassirou en Mauritanie. Mm-hmm. la la lu ko war la. Mm-hmm. bon Sénégal Mauritanie yàgg na. Mm-hmm. c'est une coopération culturelle économique bon yàlla def aussi que aujourd'hui quand euh, après la pêche, on a la gestion en commun du pétrole, du gaz. Mm -hmm. euh, bon, beaucoup aussi, c'est les mêmes peuples pratiquement. Mm -hmm. euh, mhm. donc, c'est une histoire, nous, avec Mauritanie, euh, je crois que euh, Diomaye va là-bas pour consolider cette relation, mais aussi pour discuter. que le nous gérer euh, le pétrole, le gaz les problèmes aussi de la pêche qui sont récurrents, le problème des agriculteurs, des éleveurs. donc ñun ak Mauritanie euh, c'est c'est un cas d'étude quand même de partenariat mm-hmm. Mm-hmm. que que que baax na Diomaye accordé première visite am Mauritanie maintenant mm-hmm. je crois que débat bi c'est pas que am na coopération mais plutôt comment gérer comment coopérer ah, que on aura du pétrole du gaz euh, le poisson euh, nekk la ñu concevoir intégration des deux pays sur le plan économique man vraiment c'est la grosse question. Mm-hmm. pour euh, parce que on a le potentiel am na ñu ndox am na ñu suuf am na nañu euh, pratiquement toutes les matières hein, de, yeah. agricole euh, les deux pays sont sont très riches potentiellement mais l'exploitation pour man mooy la grande question. Mm -hmm. ah, l'autre préoccupation presque aussi c'est le premier ministre il se met en place. Mm-hmm. commence à jeter un regard sur certaines sociétés qui, euh, sont indexées à tort ou à raison. Mm -hmm. Il a une mauvaise gestion pressentie. Mais il a aussi l'installation de son, son, son gouvernement. Je pense que loolu aussi baax na. Mhm. que ce presse bi bàyyi xel l'installation de du premier ministre du gouvernement les priorités du gouvernement. Mhm. loolu lu am solo. Euh, bon l'autre troisième question pour terminer c'est Macky qui reprend le service. Ouais. Ça aussi, c'est la deuxième fois qu'un chef d'État sénégalais génn après Abdou Diouf. Après troisième Abdou. fois disons même. parce que Senghor était euh, bi mu jógee ci nguur gi il était quand même à à l'Académie française. Mm. Il, il est resté longtemps à l'Académie après Abdou Diouf de francophonie tey ci Macky Sall. Mm. Euh, donc euh, les anciens présidents ils sont toujours utiles à quelque chose. Euh, je crois que maintenant le débat pour ñun il y a deux questions c'est qu'est-ce que Macky Sall va apporter à l'Afrique ouais. avec cette euh, cette fonction qu'il a d'envoyé spécial mm mm-hmm. mais l'autre question c'est euh, est l'avenir de Macky Sall euh, au niveau de la paire au niveau de l'opposition Amadou Ba euh, je crois que ça c'est des questions quand même qui sont qui là et peut-être l'inquiétude il faut insister sur il y je pense qu'on n'a pas assez accordé d'importance mooy la drogue. Mm -hmm. devient une plaque tournante. mais on se pose pas la question pourquoi quelles seront les conséquences de cette euh, transformation du Sénégal en sur l'économie sur l'économie mhm. sur la jeunesse et mhm. Mhm. mais l'autre problème qu'on ne pose pas c'est euh, bon c'est l'argent sale circule trop. Surtout. quand on dit 3 milliards. quand même hein, de faux billets mmh. qui dans une économie aussi faible jaakaar mhm. naa drogue ak l'argent sale il faut peut-être lu ñu jógee pour xeex euh, l'immigration wala lu ñu jógee pour xeex contre les droits Euh, mhm. bafoué des jeunes des femmes. Mm je pense que jar na quand nit ñi bàyyi xel mu nekk une question d'intérêt national. ñu taxawal la la la drogue. Mm -hmm. et euh, c'est euh, qui. Euh, bon c'est des milliards et des milliards. Mhm. je crois que c'est des questions quand même d'intérêt parce que bu ñu moytuwul loolu mën na plomber notre économie. Mhm. la la drogue et l'argent sale c'est-à-dire su demee ba sës mu am poids ci économie même no notre monnaie là va être waxuma sax nag suñu dundin wala les conséquences sur la la jeunesse mhm. pour man daal euh, presse bi war na bàyyi xel bu baax a baax. sur les conséquences de ces deux deux phénomènes la ñu mën a am sur comme effet sur la jeunesse. Mm -hmm. mais surtout sur l'économie nationale. Mm-hmm. que que mën na perturber tout mën na perturber même nos finances publiques. Mm -hmm. c'est l'argent sale c'est un vecteur de destruction du tissu économique et social d'un d'un pays. Mm-hmm. parce que xamuñu exactement ndax déjà comme am na lu jot a circuler ou pas muy benn mais j'aimerais revenir quand même doyen ci ci visite président bi en Mauritanie. y a des sénégalais ressortissants yi nekk foofu qui sont sortis di waxaat encore ci problème bu boo xam ne depuis xam nga tant d'années ñu ngi ci wax lépp kayit yi mu ñu am yenn papier yi foofu seen conditions yi ñu nekkee foofu et je pensais que il pourrait en profiter quand pour pour a xool nga xam ndax mun nañ ci trouver solution. bon je je crois que en tout cas problème Mauritanie ak Sénégal. Mm-hmm. il a ce problème de il des incompréhensions. que ñun notre état là euh, bàyyil xel par euh, exemple y a des questions en Mauritanie c'est la question négro-africaine bon, ça c'est un problème beneen problème bi maintenant mooy li nga wax ça Sénégal yi nañu en Mauritanie mm-hmm. mais euh, la culture euh, mour mmh. n'intègre pas le négro-africain du qui fait que ñun bon Sénégalais c'est vrai que dañu bëri ay affaire ak pexe mm. euh, souvent soo gisee sax pourquoi on a des problèmes avec nos pêcheurs là muy les Mauritaniens ils sont pas pêcheurs ce sont nos pêcheurs qui vont là mais Dieu sait que nos pêcheurs ont d'énormes problèmes pour am sax papier foofu pour mën a liggéey bon l'immigration ñu fa nekk aussi ils des problèmes d'accès au, au papier. Mm c'est délicat c'est vrai mais je pense que quand même suñu diplomatie war na naxante ak Mauritanie ba at ba gérer cette question là. Mm-hmm. la question de l'immigration là. Mm-hmm. Euh, bon euh, le mauvais souvenir qu'on a eu c'est ouais. en 89. 89. ah mm-hmm. c'est c'est parti de de de, de rien après affaire bi jël euh, bi mu jël. notre euh, ambassadeur bu nekk Mauritanie. Mhm. quand même war nañu gën a taxaw euh, sur les ressortissants sénégalais en Mauritanie mais pas seulement ouais. en Mauritanie. Mhm. c'est le même problème que tu as au Maroc. Au Maroc en Tunisie dans mm pays arabes de manière générale. Mhm. donc ñun je pense que euh, Diomaye ak la diplomatie sénégalaise. war nañu quand même jël majeur bon c'est c'est il faut le dire clairement. c'est-à-dire qu'il y a un racisme arabe contre les Noirs. tout à fait. et ça il faut on l'a vu partout euh, dans ces pays-là waaw nañu am suñu fula ak suñu fayda bon défendre le, le, le, le noir parce que c'est pas autre chose que c'est parce que c'est des noirs qu'on les stigmatise qu'on on bafoue le droit ils n'ont mm-hmm. pas de papier euh, loolu c'est dans l'imaginaire mm-hmm. des, des, arabes je crois que foofu moom mm-hmm. euh, Honnêtement, on a fait, pour revenir à l'actuel, on a fait un grand recul par rapport à l'héritage de Senghor, par exemple. Uh mhm. -huh. que, que, Senghor était au devant. D'accord. Ah, les questions culturelles unies posées, voilà, mhm. les questions identitaires, les mhm. questions arabité, uh au moins, héritage Bobo quand même à mon mais malheureusement, bon, euh, l'héritage de Senghor, quand même sur le plan culturel, on ne pas préservé à mon avis. Euh, et pour la nouvelle opposition bah, Pour la nouvelle <laughs> opposition, c'est vrai que, bon, euh, politiquement, c'est la première fois, par exemple, qu'un courant s'identifie au patriotisme qui arrive au pouvoir. Mm -hmm. Jusqu'à présent, on a eu les socialistes, euh, les, les libéraux, mm -hmm. euh, c'est les deux grandes familles. Et la grande famille euh, de gauche patriotique, c'est la première fois qu'un parti ñëw ci pouvoir incarné ko. Mm-hmm. bon c'est la première fois d'ailleurs qu'un opposant qui se réclame du patriotisme est élu en, au premier tour. Mm-hmm. donc nécessairement il y aura des conséquences sur les deux grandes familles. Mm-hmm. la famille socialiste et la famille libérale sont aujourd'hui potentiellement dans l'opposition. bon maintenant euh, Pastef va peut-être. Euh, reconfigurer la gauche. Mm-hmm. Ah, peut-être s'ils arrivent euh, avec euh, cette coalition Diomaye avec les, les souteneurs qui vont venir un peu partout, mm-hmm. peut-être que loolu dina am recomposition de la gauche euh, traditionnelle. Mm-hmm. Bah, c'est la même chose pour l'opposition, ou peut-être même c'est beaucoup plus évident dans l'opposition. C'est-à-dire que la famille socialiste a une sensibilité, mais actuellement Ils sont tous dans l'opposition. Il n'y a pas une sensibilité socialiste qui a soutenu Jamaï. Bon. pour les libéraux, le, uh-huh. le, paradoxe, c'est que le fondateur du libéralisme, le PDS, uh-huh. a soutenu le candidat. Donc les autres sensibilités libérales, pour l'essentiel, mmh. sont dans l'opposition, sauf le leader de la famille libérale, le PDS. Quelle va être la position du PDS Est-ce que le PDS va être la locomotive de la reconstruction de la famille libérale mm -hmm. euh, en étant dans le pouvoir ou en étant dans l'opposition. Mm je, mhm. je, crois que là, il y a une dimension quand même euh, intéressante <laughs> pour le, pour, le, pour le, PDS. Et, ouais. et, et aussi, euh, bon, euh, c'est vrai qu'il y a le PDS. Est-ce que dina nekk le moteur de cette opposition libérale ou, de cette euh, sensibilité libérale qui va soutenir le Diomaye mm Ou est-ce que euh, quel va être l'héritage de Watt Parce que ouais. tout le problème, ouais. il est là. Ouais. Parce que ah, la reconstruction la de la famille libérale ne peut pas se faire mm -hmm. en dehors de l'héritage de Watt. C'est pas possible. Et pour le moment, il n'y a que le PDS euh, qui maintient cet héritage tant bien que mal. Mm -hmm. bah, les autres ont quitté le PDS, ont quitté Watt. Est-ce qu'ils vont retourner pour mm-hmm. partager l'héritage C'est mm -hmm. la même chose pour les socialistes. Mm-hmm. ils n'ont pas hérité de, la même manière Senghor. Ah, ouais. Khalifa est un héritier, euh, Nias est un héritier, euh, l'URD c'est des héritiers, mais chaque héritier a sa façon de s'approprier la pensée du, du fondateur, muy mm. Senghor, muy muy mm. Donc pour man bon euh, de la famille libérale ça passerait peut-être par le PDS et par l'héritage de Wade. Mm-hmm. parce que le libéralisme quand même euh, c'est pas c'est pas que je me réclame rek non il y a un fondateur du libéralisme au Sénégal c'est Wade. Mhm. ça a donné plusieurs sensibilités maintenant léegi pour ñu regrouper wu il faut bien qu'ils discutent euh, sur cet héritage là ñu am la, la même vision mhm. c'est suñ ko amul ils peuvent pas se reconstruire et je crois que ça c'est des mhm. bon évidemment, reconstitution de la gauche encore, c'est beaucoup plus problématique. Tout à fait. Ah, parce qu'il y a tellement de sensibilité de gauche. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'ils peuvent se regrouper autour du PASTEF C'est peu évident. C'est peu évident, ah, parce que cette approche, ce n'est pas, pas la même approche que le, que le, que le, que le, D'accord. doyen moom ministre Albert mu ngi noonu Aïcha Adama Fall ay des journaux. oui. Euh, Catax. le voyage du chef de l'État en Mauritanie. qui après peut-être après sa visite au à certains guides religieux les plus grands confréries yi. day génn dem Mauritanie te xam nañ ne après peut-être dina dem Gambie c'est-à-dire mm. les les pays frontaliers. loolu sa entre dans l'ordre normal d'une visite du chef de l'État nouvellement installé mhm. parce que aussi soo ñëwee au pouvoir li nga war a jëkk def mooy jël tes marques au niveau du gouvernement ou bien au niveau de la partie de l'État dem xool yi pays nga xam ne ñoom ñoo jege nga toog ñoom waxtaan mhm. maintenant par rapport aux situations des Sénégalais qui sont là-bas moi je je je pense que le président République Bassirou Diomaye Faye le fera après sa visite il va rencontrer les Sénégalais qui sont au niveau de la Mauritanie. pour pouvoir xool situation bi enquérir des situations gars yi wax yi ko yenn problème yi pour su ñëwee mu mën a trouver des solutions. Mhm. parce que je pense qu'il sera accompagné d'une d'une bonne délégation yi nga xam ne ñooy liggéey sur cette question là. Mhm. par rapport à beaucoup de questions qui sont soulevées ba ñu nekkee ñoom au niveau de l'opposition ils ont parlé des affaires donc euh, xam naa ni boom dina am ndaje bu am solo au niveau de la de la Mauritanie. Mmh. maintenant sur euh, l' affaire de l' argent sale et truc c' est vrai que chaque matin ñu jox ñu scoop que comme quoi on a la les forces de défense et de sécurité def nañ exploit rattrapé nañ mais il faut ñu xalaat comment nous devons faire pour éradiquer ça. parce que comme ni ko doyen waxee chaque fois ñuy arrêté nit. mais jàppal ni soo arrêté kenn koo xamante ne dugal na 5 milliards de fay de faux billets am na. am na koo xamante ne rawale na dix millions ba cent millions. wala soo arrêté benn nit koo xamante ne day quatre-vingt-dix tonnes de cocaïne am na koo xamante ne dugal na leneen. maintenant mm. comment nous devons faire pour que Sénégal bañ nekkati plaque tournante de drogue et de du blanchiment de capitaux. Mm-hmm. donc loolu. Euh, le nouveau pouvoir am na ci liggéey boo am solo boo xamante ni war nañ ko mën a def pour que Sénégal situation yi nga xam ne day dund par rapport au blanchiment de capitaux et de l'argent sale ñu mun ci ñu mun ko éradiquer définitivement nga xam ne du impacter la société sénégalaise et notre économie. maintenant sur la position de de l'opposition sénégalaise <laughs> c'est claire parce que ñaari bopp yi ñuy affiché c'est des personne mais dañoo bokk ci ay entités. entités yi ñu bokk ils des libéraux pour moi. waaw ah, pour yow pour moi et man ma jàpp ni l'opposition sénégalaise présentement oui il fait partie d'un partie libéral parce que l'alliance pour la république s'est inscrite dans la famille libérale mm. donc dama jàpp ni ay libéraux lañ donc aujourd'hui ñaari parti yu mag yi nga xam ni dañu amoon obédience socialiste ak obédience libérale hmm. tey il se retrouve au niveau de l'opposition mm. qu'est-ce qu'il doit faire mooy dañoo tasaaroo woon la solution mooy il se retrouve ok il se retrouve la famille socialiste se retrouve la famille libérale se retrouve maintenant nag nañ nañ koy tuddee suba ñoom ñoo xam bi de est-ce que PDS dina ci mën a bokk loolu Assane waaw parce que PDS aussi parce que xam nga PDS dafa xaroon ci élection présidentielle yi tout ñii dañoo ànd ci lii ñii ànduñu ci donc hmm. maintenant puisque am nañ gan gi nga xam ne moom moo fi toog peut il nous dira c'est que <laughs> euh, ban taxawaay lañ ci am peut-être ñu nit ñu ñu ñu wax ko ci xalaat est-ce que dañuy nekk opposition wala dañuy dañuy nekk pouvoir parce que aussi hmm. les gens n'ont pas encore clarifié les les candidats qui perdu les élections ils hmm. n'ont pas encore clarifié leur position est-ce que dañuy accompagner le pouvoir parce que am na ci ñoo xamante ne ils étaient ensemble dans le cadre du Yewwi Askan Wi. Mm-hmm. ils étaient des candidats tey ils n'ont pas gagné les élections est-ce que ils vont regrouper le Yewwi Askan Wi et rester avec le pouvoir wala dañuy dem ci opposition bi mais man lecture bi ma def mooy sénégalais yi ñoo leen ñoo leen wax ni yéen dem leen opposition la coalition Bassirou Diomaye exerce le pouvoir. maintenant nag ban taxawaay la ñuy am candidat yooyu nga xam ne dañoo perdre élection yi est-ce qu'ils vont rester à l'opposition ou bien est-ce qu'ils vont aller vers euh, le pouvoir pour le soutenir donc ça c'est une question boo xamante ni peut-être hmm. moom mi nga xam ne mi ngi féete côté boobu mën nañu ci apporter benn benn réponse wala benn xalaat ok kon Ba Assane Ba membre comité directeur bu PDS bu fekkee am nga rek euh, commentaire déjà ci la une des journaux en général bu ko defee nag ñu daal di ñëw nag ci waa PDS parce que nag PDS moom yàgg naa yàgg yàgg nañoo jaaxal waaye defe naa fii la rawee. <laughs> waaw en principe euh, je me beaucoup de la revue de presse. Mmh. surtout des titres euh, qui sont quand même importants. Mhm. parce que dañuy relater souvent des activités gouvernementales. et de la société de façon générale. Mhm. Euh, ma jël ci benn déjà muy voyage wu président Bassirou Diomaye Faye bi en mhm. Côte d'Ivoire. li ma jëkk noté foofu mooy. les nouvelles autorités en Mauritanie mhm. li mu njëkk noté mooy président bi dafa mel ni dafa bëgg a privilégier mhm. son entourage immédiat mhm. donc disons l'Afrique de façon de façon générale et particulièrement de l'Afrique occidentale française réew yi nga xamante ñoo ñu wër ñoom lañuy ñu nekkal au sein de l'UEMOA au sein de l'Afrique occidentale française alors euh, dafa mel ni ciment li ñu bëgg a tabaxal union union africaine te mel ci foofu la sóobu. Mhm. parce que boo seetloo yooyu def prestation de serment pays yooyu rek ñoo ñëw daanaka. waaw yooyu pas un état étranger. Mhm. donc tey ñu nii dafay dem gànnaar. Mhm. ndax am nañu liggéey bu am solo bu ñu war dafa gànnaar. benn wax ngeen ko ci mbirum pétrole bi ci mbirum gaz bi te na ne gaz bi nekk foofu moo ëpp doole moo gën a baax. moo gën a bari ferñeent. loolu ama am solo la lu ñu war préserver la te itam gis nga géej gi tamit dañ ko fàtte mais napp gi dafa am solo. Mhm. sa mbokk ndar-ndar yi na waa Guet Ndar yi yéen gis ngeen toujours dañu am problème ak ñoom bu ñu dem ci waaxu ganaar yi yooyu question la boo xamante ni. Mhm. sur l' économie maritime des na ko waxtaan waxtaane parce que quand même euh, li nga xamante ni géej gi daf ko ñu koy génneel ci alal. Mhm. ci koom-koom ci lu jën dafa am solo te bateau yi nga xam dañuy wër waaxu ganaar bu Sénégal. yàq nañu yàq nañu géej gi yooyu yëpp dafa laaj ñu waxtaane ko mhm. mais même au niveau plus loin même les barages mhm. même les barrages les barrages de Manantali et autres là yooyu yëpp lu ñu war a mën parce que Afrique dama jàpp ni Sénégal Mali Guinée Mauritanie nous ne sommes que des régions mhm. du pour Afrique il faut qu'on cimente les États-Unis d'Afrique il faut que Afrique nekk benn booloo nekk benn am doole am ressources yu am am solo ñu mën a suqaliku ñu mën a génn mais tant que li ñu lekk dañ koy jéggaani ci. pétrole bi dañ fii la ëppee waaye fële lañ ko liggéey ñu rafetlu ko ñëw ñu ko jaay. Mm-hmm. télévision yeeg ordinateur yi nga yor lépp fii la euh, mbir mi jógee mais fële lañ ko defaree jaayat ñu ko. Mm-hmm. alors euh, yu bëri bëri bëri Afrique moo ko moom fii lay soxee ko minerais yi mais ñële ñu am tabax bi ñële ñu am usine yi ñële ñu am. expérience bi technologie bi ñoo ko liggéey jaay mhm. tant que africains yi indi seen borom yi xam-xam yi seen doom yi nekk benn defar loolu mais ñu avancé man li ma gëm loolu la mhm. muy diwlin ji muy ceeb bi muy lépp lu ñu lekk rek mhm. war nañ fexe ba am créé ko fii ñu jëm vers un marché comme africain lu dafa am solo trop ñu ni Guinée pourvoyeur de fruits la duñ soxla fruit keneen nañ jënd suivi Sénégal gerte la am diwlin ji nañ ko ja ceeb bi nañ ko réglé extra extra yooyu jàpp naa ni yu am am solo la ci bu ñu fëggee vraiment suñu réew yi développé et puis ñu dem nag ñu booloo parce que l'avenir est à l'unité des nations l'unité des pays particulièrement ici en Afrique mhm. parce que l'Afrique est le continent le plus pauvre le, continent a été appauvri par la colonisation mhm. l'Afrique n'est pas pauvre mais appauvri par la colonisation ñu ñëpp benn réew la ñu woon mhm. mais dañu dañu dañu dañu dañu dañu dañu partition tas ñu colons yi jël ñii ñii jël fii ñii jël France yi fii Euh, ñeneen jël fii et cetera et bon bref. c'est pour dire simplement que li ma gis daal mooy politique bu ñu mën a lal te ñu loolu mel na ni ñoo ngi régresse ñoo ngi dellu ginnaaw. Mm. alors unité africaine mu nekk lu c'est extrêmement important ah oui lu am am solo la mu bañ a nekk réel non non te loolu tam dañ ci war a xeeb parce que tubaab yi duñu nangu loolu am. déedéet parce que daf leen di ñàkkloo seen marché yu bëri bëri. Mhm. parce que seen njaay fii lañ koy jëndee. Mhm. oto fii lañ koy jënde avion fii lañ koy jëndee donc bu ñu demee ba ñun technologie boobu ñu mën na ko suñu bopp. ñu amal ko suñu bopp doo ci leen soxlaat te ñoom ñoo ñu soxla. te loolu ñoom ils ne sont pas prêts à accepter ah, cela donc il faudrait des des véritables cadres. Mhm. des véritables administrations. futé yu am courage ñu mën a taxaw mu jar leen ko. loolu je pense que les nouvelles autorités là mel na xalaat naa ni gis nañu lu demee vraiment loolu la ñu a la ñu war a def moo tax suñu kilifa gi président Abdoulaye Wade ci téerim bu mag boobu le destin pour l'Afrique créer les germes yi nga xamante ni foofu la war a jëm foofu la war a développer Sénégal je vous recommande d'aller de relire encore ce livre-là qui extrêmement important qui est un programme économique et social pour le pour l'Afrique loolu dafa am solo trop mm-hmm. je vous le recommande Christine de Souche moo ko bind le destin pour l'Afrique donc c'est extrêmement important mm-hmm. alors loolu am na solo trop maintenant li ñu jëm ci mbirum recomposition de la famille politique wala des familles politique plus exactement problème la effectivement. Euh, xam nga ñun moom euh, le président lay Wade moo jëkk a théoriser la reconstruction de la famille libérale. de la famille libérale la reconstruction de la famille libérale. Mm-hmm. alors mu bind ko bind ko alors les centristes les gauchistes la droite bu ci nekk mu defal ko ay kanu. Mm-hmm. d'ailleurs ma Adama je pourrais te donner le document bu fekkente ni war loo ko. c'est extrêmement important loolu mais euh, il faut le dire cela a été dévié parce que bi ñu koy théoriser ñu bëri bon ñii ñooy doon soog a dem ci Macky Sall ñii et cetera et bon alors xam nga rek gaa ñi bon euh, du leen tooñ gaa mais ils sont libres ils étaient partie déjà mmh. bon dem ci nouvelle prairie yi et cetera et cetera prairie Blaise Marron sax la ñu nit deenu boobu waaw waaw waaye léegi mel na ni prairie yooyu jeex na. Mm-hmm. bon bref maintenant c'est rouge rouge vert xam nga bon bref on verra bien <laughs> mais li am solo mooy ngëm-ngëm dafa am solo suñu mbokk chrétiens yi dañu faral di wax ni la mm-hmm. foi na ment pas. Mm-hmm. et c'est important nit ba amul ngëm-ngëm amul dara. tout moo tax ceux qui sont restés vraiment au PDS. dem leen gëm dem leen fonk. parce que dañ am ngëm-ngëm. mu métti lool te ñu toog c'est métti lool te ñu toog. c'est important. Karim Wade àddina gépp ñu ngi koy xaar àddina gépp soxla nañ ko naw nañ mm-hmm. ndax papaam li mu liggéey si réew bi bu mm-hmm. leen fàtte ni def na vingt six ans di xeex wallaay ñaar fukki at juróom benn mm-hmm. vingt six ans di xeex tëj nañ ko fii ñun dem nañu seeti ko kaso ba jour korité jour tabaski jouru tamxarit jouru màggal jouru gàmm heure bu ne lu rek ñu jël rek yóbbu mbànkaan comme ganaar mais ngëm-ngëm la amoon ngëm-ngëm la amoon patience la amoon en plus aussi il la patience c'est important mais bi nga xamante ni ñor na xomm xomm xomm yàlla daf ko yekkal nguur gi. sur un mm. plateau d' mm-hmm. mu def ci tamit loo xam xamante ni amul benn président bu ko mos def ci Sénégal. Mm-hmm. bu dee Akoulaye Tall rek la ñuy wax loolu c' est extrêmement loolu am na solo trop. maintenant yëf fi soppeeku na bon aujourd'hui euh, ñi nekkoon pouvoir tey ñu nekk dans l' opposition. yëf yi soppeeku na PDS am na ci loxo de. waaw PDS am na ci loxo. loxo PDS loxo PDS moom mu ngi ci biir. loxo PDS dañ koy assumé di nga assumer bu baax a baax pour avoir voté en faveur du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye doo kooku duñ ko rëccu sax nag wala boog ñaan yàlla rëccu ko bokk daanu kan la l'avons assumé et nous l'assumons entièrement mhm. pour des raisons très très simples mhm. parce que politiquement parlant li PDS am de deux li ñu ko def de 2012 à aujourd'hui mhm. amul benn parti politique boo xamante ni en dehors peut-être de Pastef yoo xam ne am na loolu te boobu bi ñu koy door ñun ñoom it dañ croiser woon na baram nañu ah laissons la justice faire son travail. vous étiez seul. nous étions seuls. et nous avons mené le combat c'est ce que je dis souvent. démocratiquement. Mm-hmm. et sur le plan judiciaire également. Mm-hmm. et nous avons gagné beaucoup de nos procédés. Mm-hmm. beaucoup de nos procès par rapport au gouvernement. mais malheureusement la constitution n'a pas été appliquée. parce que l'article 98 de la constitution est ferme. dafa wax ni euh, yi nga xamante ni tribunaux bitim réew yi dogal nañ ko. dañ ko war appliquer. mais ñoom dañ ñu enclure dañu toog. ñu ñu ñuy indi ay question de souveraineté mm. dès lors que tu es signataire des accords dès lors que tu es signataire de principe dégg nga bu ñu voté à l'Assemblée nationale mais tu as tu as tu as délégué n'est-ce pas ce pouvoir de souveraineté là à l'instance à laquelle tu as souscrit mm-hmm. donc loolu am solo la mais malheureusement les pouvoirs africains encore une fois c'est c'est c'est comme ça lu metti la mais c'est comme ça mm-hmm. alors donc loolu dañ ko assumer suñu suñu participation mm-hmm. à la victoire de Bassirou Diomaye Faye nous ne disons pas que ñu ñoo tax mu folu nous ne la disons pas. mais nous ne le mm-hmm. mais kenn ku nekk xam nga ni suñu apport suñu apport ci élection bi am na solo. trop trop bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu app bu ci loolu. Mm-hmm. Euh, xëy néew ma du ñu gagné de mais deuxième tour mu day am. Mm-hmm. parce que à supposer que bas mot que le PS pèse dix pour cent rek wala sax pour ñenn yi sax supposé nañ sax de cinq pour cent. enlever cinq pour cent c'est cinquante quatre pour cent loo fay lu fay des. donc c'est le deuxième tour. c'est un minimum si c'est un calcul blabla d'ailleurs mm. donc c'est pour dire simplement que nous avons joué un rôle important te loolu te loolu gars ñi ñoo ñoo tax loolu am léegi nag coow li dafa bëri euh, Assane mm-hmm. parce que ñëpp ñu ngi laajte démb rek les journaux en ont parlé mm-hmm. PDS lan lay xaar mooy d'ailleurs suñu suñu suñu suñu thème PDS lan lay xaar ginnaaw bi ngeen jàppale nag euh, coalition Diomaye président ñu ngi fii teg nañ seen gouvernement ak ñëpp ñu ngi laajte PDS lan lay xaar vous avez sorti communiqué hier ngeen wax que ne yéen seen but c'était juste de voter contre Amadou Ba loolu moo taxoon PDS jóg. nan hmm. la PDS di xaar. très bien. PDS en vérité lan ngeen waxante lan en vérité. Hmm. PDS waxantewul ak Bassirou Diomaye Faye sur des accords politiques. Okay. c'est un c'est un c'est un vote véritablement sans condition wala boog sans conditionnalité. Mm -hmm. notre problème c'était seulement de défaire le régime de Amadou Ba. wala boog de Macky Sall. Mm-hmm. pour des raisons politiques connues d'ailleurs mm-hmm. kenn du laajte lan la régime Macky Sall def Ablaye Wade wala la lu mu def PDS mm-hmm. ñaata yoon lañu fi teg ñaa nanga mi cadre ci PDS ñaata yoon la ñu jël ay liste naan ñii ay sàcc lañu excusez-moi de l'expression mais c'est ce qu'il disait pour être pour être honnête avec les gens alors jël fii créé créé ko repoussière ko daal di bind liste vingt cinq personnes kenn lañ ci invité mooy mooy Karim Wade déporté ko sept ans huit ans muy bés stéréo te mënu ñëw mhm. ñu sos def lu ne lu ne lu ne ak yenn ak yenn ak yenn ak yeneen donc c'est pour simplement notre principal objectif c'était d'abord vraiment de de de de faire tomber ce régime là et puis reconstruire l'état de droit ok reconstruire l'état de droit mhm. fexe ba li nga xamante ni également mooy chômage yu xale yi ñu ñu liggéey ci bu baax a baax a baax a baax mhm. fexe ba également li nga xamante ni ñoo ko moom suñu bopp ñu bañ ko brader mu bañ a dem entre les mains étrangères. ñu am suñu autonomie suñu indépendance en quelque sorte. Mhm. c'est c'est relatif parce que les pays dañu dañu dañu jëflante y des accords y a des protocoles y a tout cela mais quand y a un minimum nest pas boo xamante war nañ ko mën moom moomal suñu bopp. donc ñun xaaruñu woon dem ci gouvernement bi j'ai vu effectivement seen collègue yenn journaux yi bind ko. Mhm. parce que ñun bu ñu dugg ci gouvernement dañu ko assumer je rappelle ici que le 8 euh, avril 1991. première date d'entrée de notre parti dans le gouvernement de Abdou Diouf mais cette entrée-là a fait l'objet d'un large débat mmh. au sein de notre groupe politique au not au sein de notre bureau politique dañ ci waxtaan du matin au soir ñu débattre ko ba ba ba ngoon ba vingt-trois heures jëm minuit ñu soogee am accord ñu jox carte blanche au président Abdoulaye ñu ne on est le parti est d' accord pour ngeen dugg dans le gouvernement mais à condition que lii ak lii ak lii ak lii ak lii. y avait des conditionnalités. Mm-hmm. ñu dugg avec cinq ministres. Abdoulaye en était le ministre d' état auprès du président de la République. mais duggaat nañ si également le 15 mars de mille euh, 1995 euh, également suñ deuxième entrée également. Mm-hmm. loolu yooyu bu ci nekk dañ def l' objet de discussion. donc dañ ko waxtaanee. le PDS ne se cache jamais. l'UPS prend toujours ses responsabilités. Mm -hmm. donc bu fekkoonte ni tey am lu ñu doon waxtaan ak euh, les nouvelles autorités. mais kon du ñu du ñu du ñu naan dañuy yónnee ay liste ak non ay caaxaan la loolu l'UPS ne fonctionne pas comme ça. l'UPS ne fonctionne pas comme ça moo tax. nous avons sorti un communiqué officiel du parti. wone ni loolu amul dara amu ci ay waxtaan rek la. te wax dëgg fa yàlla ko xam dëgg dëgg da xam ni part bu man assumer ses responsabilités la. d'accord duñu laxtu duñu quitte à en prendre li ñu siy jël mais duñ laxtu duñu duñu wóoraan loolu moom suñ suñ mbir la. d'accord doyen bu fekkee PDS bokkuñu ci appareil gouvernemental bi comme on peut le dire entre guillemets est-ce que vous pensez que comme lu muy wax nii li ñu bëgg mu am ñu am suñu souveraineté l'état de droit que l'état de droit revienne et est-ce que loolu ñoom dinañ ko mën a def. non disons que euh, bon PDS c'est c'est un parti un peu complexe. Mm-hmm. parce que euh, pour moi. le PDS dans l'opposition devrait être en alliance avec le changement du PASTEF jusqu'au bout c'était ça la logique. c'est-à-dire que c'est-à-dire que wax na ko euh, Assane. Mhm. Euh, soo xoolee 2012 euh, 2024. Mhm. ñu gën a souffrir ci régime bi. ku njëkk souffrir mooy BDS. Mhm. parce que c'est le, le, le la traque c'était contre le PDS. le, le, le, la transhumance était avec le PDS, euh, les limitations des libertés. Beaucoup, beaucoup de responsables PDS, quand même, sont, ont été les premiers à aller en prison sous le régime de, mmh. du, du, président, du mm-hmm. Donc cette période-là, cette, cette euh, période-là correspond à un affaiblissement du PDS mm-hmm. par le pouvoir. Mais à part le PDS, c'est le PASTEF qui a été la deuxième victime. donc logiquement sur le plan politique en 2024 le PDS ne pouvait pas ne pas aller avec le PASTEF mmh. maintenant euh, la différence entre PASTEF et PDS c'est l'approche le, le, la PDS était beaucoup plus expérimenté mieux organisé mm-hmm. plus serein mm-hmm. euh, on avait du mal à dire le PDS est-ce qu'il est dans le pouvoir est-ce qu'il est dans l'opposition mm-hmm. mais tout compte fait Euh, fi ngay xamee un grand parti politique c'est le dernier virage du PDS le, le fait d'appeler politiquement à soutenir le PASTEF mm. ça c'était ça la position naturelle du PDS okay. bah, maintenant il des raisons internes qui ont fait mm. que euh, euh ils ont pris leur distance mm. euh, à un moment donné même à un moment à, euh, aux législatives le PDS a eu l'intelligence d'aller en intercoalition mm-hmm. donc PDS mën nañu wax ne dafa doon expérimenter quelque chose Et la finalité c'est que comme il l'a dit ñoom il font partie de ceux qui ont voté pour euh, Diomaye euh, bon maintenant la question bi ngay posé c'est le PDS doit faire un choix mm-hmm. à mon avis euh, le choix c'est de dire je vais être cohérent avec moi-même dire que le projet PASTEF soo xoolee l'histoire du PRS c'est extraordinaire le projet de Wade n'est pas très loin du projet PASTEF mm -hmm. pas du tout alors mm-hmm. c'est sur le plan économique sur le plan social sur le plan culturel il y a euh, des correspondances quand même mm-hmm. je je prends juste l'exemple les bases militaires françaises juste c'est tout ce que le projet PASTEF dit là Wade dafa yeewu benn jour ne lii ah, amatu du amati c'est un acte patriotique c'était un acte de, de souveraineté euh, soo gisee également par rapport aux sociétés françaises bon c'est pas par hasard que les Français ont combattu la candidature de Wade mm-hmm. donc projet PASTEF projet PDS en tout cas le PDS de Wade mm -hmm. am convergence je peux aller plus loin mm-hmm. l'idée d'intégration mm-hmm. Bah, les gens peut-être ont oublié que Wade bi mu ñëwee au pouvoir c'est en ce moment que les pays africains se sont retrouvés autour du NEPAD. C'est ça. Et le NEPAD c'est une option politique panafricaniste. Mm -hmm. C'est pas pour rien qu'il y avait le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Asie, euh, le, le, le le le le le Ghana le Nigeria les grandes puissances africaines. Mm -hmm. donc am na recoupement am na recoupement je pense que cohérence pour cohérence le PDS ne devrait pas lâcher les transformations yi mu wax sànq si si le PASTEF et Diomaye sont convaincus qu'il faut le, le, les États-Unis d'Afrique à mon avis le PDS devrait soutenir cette dynamique de rupture mmh. bon pourquoi je le dis donc convergence PDS euh, et le projet PASTEF mmh. maintenant il y a des différences c'est clair que Ousmane Sonko son style euh, ce, son, ce, ce, euh, ses convictions, c'est différent du PDS. Mhm. Ils n'ont pas la même approche, ils n'ont pas le même style. Mais est-ce que loolu war na tax nga bañ a am une coalition de gouvernance je, je crois que ça c'est une c'est possible mhm. que PDS am lecture boobu ànd ak fu mu mën a yem avec la, la nouvelle majorité mhm. maintenant beneen difficulté bi pour euh, parler ça la famille libérale euh, je pense que Wade tel que il comprend la famille libérale dafa wuute ak ñeneen yi c'est-à-dire que Wade il est libéral c'est vrai au niveau idéologique mais politiquement c'est un panafricaniste. les autres qui disent qui se disent libéraux ils sont alignés sur les options néolibérales. néolibérales c'est-à-dire que euh, lu mu bañoon moom Wade ci Diouf. loolu la bañ bi mu ñëwee ci nguur bi tout ce qui est néolibéralisme qui allait dans le sens de euh, du FMI euh, de la Banque mondiale des Américains euh, Wade n'était pas dans cette dynamique là. ce qui fait que même l'unité de la famille libérale lool taxoon ma la sànq bon ça m'étonnerait ça m'étonnerait que que les libéraux là ñu am la même perception du libéralisme parce que wadd il est plus à gauche qu'à droite. Okay. Et, et là, bon, est-ce que dina am des débats des débats euh, au niveau de, des acteurs de la famille libérale en tout cas à l'état actuel. Mm -hmm. bon si je prends projection pour projection Karim Wade si c'est lui qui va être euh, le porteur du projet du PDS bah je je le vois mal. Mm -hmm. Hein, je, le vois mal aller au, avec les libéraux pour dire que moi je vais être néolibéral. Je le vois mal. Il, a, si je me comprends en tout cas, qui démarche Karim, euh, il est encore dans, dans l'ancrage du, euh, du, panafricanisme, d'une rupture avec le modèle euh, étranger. Euh, pour moi, il y a peut-être ce débat-là hein, qu'il faudra que les libéraux, que les C'est la même chose pour les socialistes aussi. Mm-hmm. ah parce que parce que tout le monde euh, est devant la même difficulté quel quel modèle de développement endogène est-ce que c'est le modèle néolibéral qu'on nous qu'on nous propose au niveau des institutions ou est-ce que c'est le modèle panafricaniste je, je crois que loolu moom bon euh, c'est pour ça que je suis un peu optimiste pour le PASTEF mm-hmm. s'ils sont s'ils sont vraiment euh, préparés Euh, s'ils mesurent les responsabilités, ils peuvent trouver des consensus, mm-hmm. aussi bien avec le PDS bah, qu'avec euh, certains, certains, certains libéraux, certains socialistes. Mm-hmm. mais quand même, ça, ça, ça demande beaucoup, de responsabilité de la part euh, du passé parce que ce que slogan. Mmh. c'est pas un slogan. Ça, il faut être capable de proposer quelque chose ba nit ñi teg ci seen bët mën a ànd ak yow mais su dee rek slogan rek. yaakaaruma euh, Pastef mën a am un soutien du PDS wala un soutien des. Euh, day nekk lu concret. je pense que non ils ont une maturité. qui leur mm-hmm. permet de de jauger. Mm-hmm. du du comme il a dit ah PDS c'est pas que wax nga rek topp na la. Mm-hmm. c'est c'est le PDS à force c'est Euh, je crois entre guillemets c'est-à-dire que nekk ci gannaaw keneen suñ suy indi loolu moo indi seeni problème day ànd ak day ànd ak yow fekk hmm. bokk ngeen gis-gis hmm. mais du taxaw rek même el local législative présidentielle Abdoulaye musul nekk ci gannaaw keneen et comme il a dit bon ça ça réussi quand vingt six ans il a il a il a il a encaissé c'est vrai il a reçu beaucoup de coups Bon, mais il a, il a quand même réussi sa, sa, son, son combat. Je crois que pour man dal le, euh, bon, et puis wuute na PDS par exemple pour rester sur dans ta dynamique là dafa wuute ak euh, euh, réew mi dafa wuute APR. dafa mm-hmm. wuute bon dañu am socle. dañu am socle te xam nañ fi ñu bu ñuy def dañu am socle. Mm-hmm. c'est c'est c'est un roc. Mm-hmm. alors que ñeneen ñi. bon ils sont ils sont fragiles am réew mi est très ah. fragile bon l'APR l'APR est très fragile mais on ne sait pas qu'est-ce que va devenir l'APR dans l'opposition ah ça c'est une épreuve qui les qui les qui, attend qui les attend et le président Macky Sall ni leen soyez dit dans l'opposition alors oui euh, les analyses sont bonnes mais man damay génn feneen fu fu gars yi par rapport au PDS parce que aussi élection yi dañoo dund loo xamante ni dafa dafa dafa grave. Hmm. un candidat accusé un autre candidat de corrupteur. waaw ah. issu du PDS. te mujjul fenn. c'est-à-dire aujourd'hui PDS dañu war a édifier par rapport à cette affaire là parce que suñu renvoyé élection yi c'est parce que dafa am accusation bu jógee PDS dem ci beneen candidat PDS dafa dem euh, dafa dem assemblée nationale ñu def loi pour repousser les élections donc situation bi nga xam ni moom la Sénégal nekkoon dans de crises moment élection yooyu c'est le PDS boo ko fi teg donc pour man PDS dafa am leçon yoo xamante am dafa am dafa am loo xamante ne daf ko war a leeral askanu Sénégal en tant que parti politique bi nga xam ne dafa amoon candidat bu tudd. Euh, Karim Wade c'est vrai il a dit ñoom am nañ. oui. Mm. da mais n'est-ce pas que jëloon jëloon nañ seen kii pour mu dem pour mu dem. non li ma bëgg wax daal xam nga problème bi mooy accusation baa ngi fi. la justice. non moom la oui mais accusation bi c'est-à-dire. damay bañ affaire bi dem perte profit ndax li accusation yooyu am na wala amul parce que accusation yooyu dañu dañu perdre loo benn candidat. Mm-hmm. dañ ko teg ci deru benn candidat. Ah. mu am lu mu joué par rapport ak beaucoup de situations parce que candidat boobu ba mu ko accuser rek amatul chance bu bari muy le candidat Amadou Ba donc li muy wax nii le PDS à travaillé pour la victoire de Bassirou Diomaye effectivement le PDS a travaillé pour la Bassirou Diomaye et pour la défaite d'Amadou Ba mhm. parce que accusation boobu moo moo wàññi lu bari sur le candidat Amadou Ba mais accusation boobu warul dem perte profit c'est-à-dire c'est-à-dire warul warul nax saay mooy ñu bàyyi ko noonu pa nga xam ne ku mu neex rek xëy suba accuser beneen candidat parce que dañuy dem élection. Mm-hmm. parce que yaakaar naa ni. li ngay wax mooy dafa war a leer. dafa da comme li daf ñu ko war a leeral. Sénégalais yi war yi war a xam exactement est-ce que li Karim Wade doon wax am na wala amul wala seen projet de loi boobu ñu àndoon ak Benno Bokk Yaakaar ba renvoyer les élections au au 15 est-ce que du woon deal bu am pour permettre Karim Wade mën a bokk. ok question la. ñaari question ngi noonu. parce que seen taxawaay bi yëpp mooy dañu bañ a dañ ko tere candidature am. ñu jóg Karim Wade jóg accusé ñoom seen machine jóg nekk en branle dem pour repousser les élections ñu ànd ceeg la Bokk Yaakaar pour loolu. ci gën a graaw mooy candidat Benno Bokk Yaakaar lañu ñu accusé woon mais les députés de la coalition Benno Bokk Yaakaar jóg ànd ceeg yéen. ak la coalition Wallu. d'accord est-ce que du nu woon parce que ay laaj laay laaj ay lu may samp. Ah, est-ce que du woon. deal bu amoon diggante PDS ak la coalition Benno Bokk Yaakaar par exemple je dirais le président Macky pour ñu repousser les élections mm-hmm. beneen biir ba ñu ba ñu ba conseil constitutionnel kase loolu parce que man ay laaj billaay dama yàkkamte woon lii <laughs> beneen biir ba ñu kasee décision bi ñu dem cour suprême waaw toujours ci dynamique ci logique repousser les élections pour permettre Karim Meïssa Wade bokk ci élections yi waaw bañ leen bañ leen daanee ki ñu jam baaraamu tuuma mooy président de la république Macky moom moo leen tere seen candidature. ok teggi nañ baaraamu tuuma bi ñu tegoon ci Amadou Ba teg ko ci président de la république Macky donc est-ce que liñ doon diil dafa foire wala parce que. est-ce que dil la yow tam ba Adama Fall mënoo est-ce que dil ba pare ne est-ce que dil ba pare ne est-ce que ba pare a ne est-ce que du deal bu ñu doon teg pour permettre euh, de PDS de ah, participer na ko téye parce que damay joxe analyse par rapport à la au PDS en tant que famille libérale doo bàyyi mu tontu ci ñaari question yooyu après nga ñëwaat gënul nga ñëwaat ci kii famille libérale bi waaw Euh, deux questions yu am importance la posé yu sénégalais yi bëgg a xam. waa sénégalais yi moom. Mhm. xëy na moom dafa bëgg waxtaan bi neex rek. ah mais en vérité Sénégal yi xam nañ li xew. ah li xew lan la euh, ñun dañu gis ni on a cherché à évincer notre candidat. Mmh. par des méthodes injustes parce que sunu candidat dafa indi leen neuf places <coughs> yi nga xamante ni moom la code électoral wax. en matière de présidence booy def candidat à la présidentielle. ñu gis kenn ku ñëw contester candidature Karim Wade sous prétexte que il n'est pas de nationalité exclusivement sénégalaise. ñëpp yéen dund nañ épisode boobu. alors ñun ñu fournir le décret français actant que Karim Wade effectivement de nationalité sénégalaise. Mm que na ses liens avec la France. Il mu fournir que le 16 la le lendemain bi nga xamante ni contestataire bi déposé na kayit bi mu contesté le 20 de ce même mois conseil constitutionnel détenteur de la légitimité pour répondre à cet acte-là mhm. yor le décret français qui prouve que Karim Wade plus français mais il est de nationalité exclusivement sénégalaise moom mu bañ nangu candidature Karim Wade ñu ne yow itam nous sommes un grand parti nous avons géré le temps pendant douze ans toutes les procédures yi nga xamante ni day dox au niveau de la justice et au niveau de l'administration dañ ko am parce que nag nous étions là nous étions là-dedans bi ñu defee suñu nemmeeku suñu gëstu bopp ñu gis ne effectivement il y a eu et nous avons instruit notre groupe parlementaire defal nànk rek dama laa déglu defal nànk rek Sénégal yi ñu ngi déglu nous avons bëgg mu leer defal nànk rek waaye pot de vin du daal mooy guerre bokk mooy guerre bokk mooy juge yi xam la guerre ah. leeral dem li pot de vin mooy guerre bokk ok ñun dañ ko assumer duñ ko assumer duñ ko assumer ñu instruire le groupe parlementaire du Parti démocratique sénégalais ñu def une euh, enquête commission d'enquête parlementaire laquelle commission d'enquête parlementaire droit moo ñu ko may réglementaire assemblée moo ñu ko may bi ñu ko tabee ba commencé fonctionner dégg nga alors la justice s'est autosaisie cette cette cette question là donc moo anéantir procédure continuation wu commission d'enquête parlementaire boobu parce que loolu la loi bi wax léegi kay leeral bi ngay laaj mooy il appartient maintenant au juge d'instruction commis pour éclaircir les sénégal de cette question là moom moo ci des nos les personnes concernées nous convoquer les personnes concernées xam na ko bu ko defee. Hmm. mu leer nañ c' est comme ça c' est la procédure te ñun code pénal def ñu interdire génne les preuves ou ou kudul au niveau de la commission d' enquête parlementaire. Hmm. c' est code pénal qui nous l' ah bu ñu ko defee c' est une infraction ma xamal la ko tey <laughs> non ma xam ne je parle de loi Sénégal yaa ñu déglu. je sais je ah sais ah waaw kon nag mu wax le code pénal moo ñu interdire ñun. ñu koy génne dans la rue wala sur les médias publics yooyu. kon da nga bëgg wax askan wi Sénégal dafa am ngeen ay preuves yoo xamante ni suba suñu leen ngeen joxe ko. xanaa doo dégg dem ni la. waaw suñu ay preuves ñun. waaw loi moo ñu permettre ñu joxe lu dul devant la commission d'enquête parlementaire feneen fu ñu ko joxee rek def nañu erreur. ok te nous sommes passibles de sanction. ok kon duñ ko def. kon Sénégal yi nañu ab daal ak xaar ba ñi nga xamante ni yóbbu nañu affaire yi au niveau de la justice ñoom ñu clarifier situation bi. Mm-hmm. mais loolu rek et puis yow yaa ngi naan diil diil waaw xanaa ñun bu ñu doon deal ak Macky Sall wala ñu ak Amadou Sall xanaa ko doon jàppale ko ci élection yi. non waxuma Amadou Sall non non non non. benn po fois benn la Amadou Sall bu nekkee Amadou Ba bu nekkee premier ministre kay mais il est pour et pour le compte de de Macky Sall président la République quand même sans lui il ne serait pas. donc c'était pas un deal sans lui il mais quand la. non damay laaj rek non mais lu ñu dil man am Macky Sall dañuy ñu dil ak moom. Amadou Ba amul lu ñu dil ak moom encore encore une fois Amadou Ba. encore une fois Amadou je te le dis si tu ne le savais pas il était sous notre responsabilité. kii hmm. Amadou Ba président Abdoulaye Wade moo moo jël décret nommé ko directeur général des impôts et domaines. nga xam loolu boo ko xamul woon. muy hmm. benn hmm. ñaareel ba il était dans dans dans dans dans la GC. oui génération du génération du concret. il était sous les la responsabilité et sous sous sous le patronage n'est-ce pas de Karim Wade ma xam loolu boo ko xamul woon. donc c'est pour dire véritablement moom moo am kersa tey jàkkaloo ak ñun waaye ñun am ñu kersa jàkkaloo ak moom. Mm-hmm. c'est ça la réalité. loolu tamit il est important comme da nga bëgg Sénégal yi xam Sénégal te war nañu mën a xamaale loolu. loolu laa ah, donc donc loolu loolu mooy problème bi beneen question bi lan la woon. non non ñaar ñaar yooyu. ñaar yooyu la man dama bëggoon joxe sama sama xalaat rek. sur la sur la sur la sur la famille libérale. parce que aussi gis nga élection yi les élections de de Bassirou Diomaye à la tête ce pays là am lu mu jàngal sénégalais. dafa am sénégalais yi du ñu jël décision te man sama gis la nag mën naa juum la disparition des partie traditionnels man loolu laa gis. ok parce que gis nga PS pour mu dellusiwaat au pouvoir dafa dem dugg ci biir coalition mu tas plusieurs fois pedes am na difficulté rebondir parce que aussi bu bu ñu xeeb PDS le PDS pèse au bas mot ses cent mille voix seul donc li ñuy wax parti bu taxaw la au niveau au niveau national am na et au niveau international mais ak situation politique bi nii la reconfiguration politique bi war a bi war a am sénégalais yi dama jàpp ni ils ne sont pas dans les partis classiques bëgg nañ am lu bees lu ñëw c'est vrai man gëwuma la mort des idéologies jàpp naa ni PDS ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo jóge ci parti yooyu suñu bëggee dellu soit au niveau du pouvoir wala dellu soit taxaw war nañ mën a regrouper wu tase man du ma ànd ak doyen ba muy wax naan le PDS doit aller parce que le PDS li mu xam mooy l'exercice du pouvoir PDS loolu la xam. waxul loolu de doyen loolu la. non soutenir quoi non j'ai dit soutenir ànd ak ñoom liggéey mais le PDS exercer le pouvoir la xam. waxul sax loolu. est-ce que yaa waaw doyen waxul loolu de waaw. mais di doyen ñu ñaan léegi perdre le fil de l'analyse que tu es en train de faire. le PDS tu parles de 500 000 voix. c'est vrai moom la dernière élection yi. sans le président Abdoulaye son secrétaire général national sans son candidat le PDS à lui seul. Mm-hmm. ma xamal benn ak quel est le parti aujourd'hui au niveau national sur les 371 partis officiellement reconnus qui pèse 500 000 voix il y en a pas il y en a pas nous n'avons pas donc une peine de rebondir nous sommes dans l'échiquier politique et nous comptons APR mais ma rek may ma rek may s'il te plaît s'il te plaît non non non non non s'il te plaît APR depuis mu juddoog léegi il ne s'est jamais pesé lui-même intuitif personnel comme APR à l'issue d'élections mhm. qu'elles soient municipales régional en ce moment en, dans le temps de même que législative ou présidentielle l'APR a toujours été a, toujours non a toujours été aux élections sur la bannière de Dekkal Ngor parce que non ah coalition la woon Dekkal ko municipal la coalition la de de je te parle non seul oui je la voilà très loolu laa wax man les Sénégalais nous écoutent loolu laa wax wu ba xam la mooy seen poids est-ce que cinq zéro virgule cinq cent ngeen wala ndax un kilo nga wala ndax un kilo cinq mosuñu posé. a pas une autre partie au Sénégal en 2022 donc c'est important nous n'avons la nous sommes n'a parce que nous sommes nous sommes là nous sommes premier parti sénégalais. Ah nous sommes le premier parti sénégalais en termes d'électrons. y en pas un parti bu ñu égalé la preuve xool ma c'est 0,30 pour cent c'est 0,1 pour cent nga wër Sénégal yëpp entre nous hmm. ils ont certes de bon bons cadres qui dirigent ces partis la hmm. mais les les populations ne les suivent pas n'ont pas un appareil fii PDS rek moo fi am appareil tout à fait qu'on le veuille ou non c'est ça la réalité tout à donc loolu nañ ko nangu ay 0 virgule man demurus demurus franchement parlant bi conseil constitutionnel génnee résultat yi day dem ko garder zéro virgule zéro virgule zéro virgule zéro ñaar ñoo si am un un virgule un virgule ñaar xaw ma ñett ñu def zéro zéro zéro quand même loolu war na war na war nañ mën a xoolaat situation bi mm-hmm. moo tax li ñu war a jëkk xool mooy seetaat physionomie parti bi seet nak lañ leen di na nag en tout cas la ñuy defar parti ndax dañ leen imposer parti bu nekk intitulé intitulé personnel da ngay dem par élection ñu def sélection ñun ñii noo war exister wala de parce que comme souvent les primaires. waaw il faut qu'on trouve des formules. ne pouvons pas comme aller à des élections avec une cinquantaine de partis. avec cent partis. alors ces ces là ne pèsent même pas le poids d'une d'une de sardines excusez de l'expression. Mm-hmm. pèse wuñu potu sardine. ba pare nga leen bàyyi dañuy réunir ay wax yu bëri amul njëriñ loolu candidat yu bëri oui candidat yu bëri amul njëriñ il faut que les gens la fassent de regroupement par idéologie par famille politique par idéologie par ñi nga xamante ni ils se rapprochent de de de leur famille ñoo àndandoo nekk benn nekk un groupement man je crois que il faut qu'on aille vers mais bu ñu deful loolu du sotti d'accord nous dépassons le Zaïre avec deux cent avec cinq cent et quelques partis à un certain moment man dama jàppoon yi mënoon na régler la question de des partis politiques c' est vrai gars yi sont partis sur la bannière des de des des coalitions mais élection yi mënoon na ko parti parce que parrainage bi dafa ñëwoon pour régler yenn question mais après les résultats on a vu que ñi ci bëri seen parrainage baaxuloon man loolu laa jàppan ah. man loolu laa jàpp man loolu laa jàpp ñi nga xam ne 10 000 voix la ñu am ñëpp. mais ce qui doog ma ah, excuse-moi. mais parraine que parti am le nombre de parrains. oui cinquante quatre mille quatre cent quatre vingt un je crois c' était le minimum. nga dem élection nationale. nga am dix mille voix <laughs> nga am dix mille voix. c' tout à fait. doyen ko ku ma vraiment. ah c' parce que sa bopp da amul dara newu avec le nouveau régime li ñuy wax nii on a l' impression yu fi jaaroon yëpp avant les élections li ñu doon kaas. Euh, di di di xuloo waa conseil constitutionnel les candidats recalés et autres entre autres yooyu noonu yëpp fi nekk nii dañ ko bëgg a gas yëpp ñu suulaat ko est-ce que noonu lañ koy bàyyee pour après bu élection amaatee ñu amaat les mêmes les problèmes non au contraire au contraire hmm. c'est-à-dire am na li nga xam ne mën na lu yaakaar naa élection bi luñ ci mën a jàng bari na lool lool hmm. euh, honnêtement euh, ku bëgg a def politique moom Euh, balaa ngay sumb luy ñëw. Mhm. da nga war a taxaw. Euh, seetlu que mhm. bu dee daal politique moo la tax a jóg. nguur moo la tax a jóg danga war a taxaw euh, seet muy parti politique par exemple c'est le premier repère peut-être pour tous les partis politiques c'est que c'est c'est quoi un parti politique à l'issue des élections présidentielles. Mhm. ah ça ça semble quand même important soo waxee. Euh, PDS on sait que c'est un parti soo ay APR on sait que c'est un parti PASTEF c'est un parti mais bon taxaw aussi réew mi mais euh, soo xoolee euh, 17 candidats yi y a peut-être 5 qui ont des partis politiques mmh. et même parmi les 5 euh, majors ñi nga xam ne génn nañu il faut se poser la question aujourd'hui bon parti politique lan lan la war a tekki mm-hmm. est-ce que nit ki la rek wala est-ce que c'est ñu ne Sénégal nit ki la voilà mhm. Mhm. Mhm. donc ya ya y a une différence une élection présidentielle mën na nekk nit ki kot mais parti politique mënul nekk nit ki kot tout à fait donc y a une, cette première leçon de euh, démocratique bon euh, différence entre un parti politique et un leader wala un, un candidat à la présidence mais deuxième euh, lu ñu war a saytu mooy le programme tu sais un un programme politique man yàgg naa wax mes amis APR la cest dire boo yoree nguur un un mandat deux mandats ngay dem laajaat pour préserver ton pouvoir le programme de l'État warul nekk sa programme. parce que tu emprisonnes ton candidat c'est ce qui est arrivé à Amadou Ba. Ah, était prisonnier du programme de Macky Sall. bah soo xoolee les gars du PASTEF là ils n'ont même pas fait deux semaines de campagne hein, mais tout le monde savait le projet. Ouais. tout le monde avait en, en tête les grandes lignes du projet. Mm-hmm. soo jëlee PUR. bah tout ouais. le monde sait le PUR s'identifie à programme. Mm-hmm. donc il y a une réflexion à mener c'est quoi un programme politique. c'est mm-hmm. qu'est-ce qu'on peut proposer à une nation à un État. Mm-hmm. Euh, pour man honnêtement su ñu leen sanctionner c'est parce que. il voulait tourner la page de Macky Sall c'est un vote sanction c'est pas c'est pas le programme ah, les, les gens n'ont pas voté pour un programme Pastef Diomaye cohérent non ils ont ah, voté pour sanctionner un pouvoir c'est c'est un vote sanction mm-hmm. donc là aussi bon jar na quand même taxawaat euh, bu bu bu politique moo leen tax politique c'est un programme mm-hmm. c'est un projet. Moi, moi, je me rappelle, bon, par exemple, pour rester dans l'opposition, que ce soit euh, PDS, euh, mm-hmm. Mais ils ont mis du temps pour construire leur programme. Tout à fait. Mm -hmm. di ne bon il a dit moi moi je peux témoigner soo xoolee programme Abdoulaye ak programme bi mu yore vers les vingt vingt les années 2000 dafa wute tu sais pourquoi parce que Wade il a mené sa réflexion. Mm-hmm. yu yu ci bëri yu ci bëri lu ñuy wax euh, programme euh, Wade en 2000. Mm-hmm. il a fait ses livres il a fait ses articles ses articles il a fait ses conférences il a fait des échanges. Mm-hmm. et puis il avait la chance d'avoir des cadres autour de lui. démarche boobu pour mu aboutir à un programme c'est réfléchi mais Macky bi muy créé APR Macky Sall dafa il a fait quatre ans presque en campagne. son son programme euh, bi mu bi mu taxawal. Euh, yooni yokkute ne serait-ce le concept. de mm-hmm. yoon pour yokk. Mm-hmm. mais il a fallu qu'il discute avec les militants les responsables il a eu beaucoup d'experts qui l'ont aidé à à à à, construire son projet. Mm-hmm. de yoon yokkute. donc pour man honnêtement il faut que les acteurs politiques là même askan bi. dañu war a bàyyi xel ci c'est quoi un programme politique. Mm-hmm. que warul nekk daal un slogan. Ouais. Euh, bon maintenant pour terminer euh, sur les les partis politiques aussi c'est que gis nga organisation parti politique loolu la loolu dafa war a bokk ci enseignement élection mm-hmm. présidentielle. Mmh. une élection c'est un appareil. Mm-hmm. il il a dit nga yow nga taxaw fii Amadou Ba ne am naa deux millions de parrains quatre millions de parrains que le temps fii am naa quarante ñi cent ngeen dem élection vous n'avez même pas le dixième donc vous vouliez manipuler l'opinion mais l'opinion vous a marché dessus tout à fait c'est ce qui s'est passé donc l'organisation politique c'est pas le parrainage surtout non c'est pas le parrainage nit ki da nga war a xam ni que euh, la politique c'est une question en réalité d'organisation mmh. soo soo amul organisation doo jël nguur soo jëlee nguur amoo organisation doo fa yàgg. surtout na je pense que léegi débat bi est-ce lu foofu la war a nekk. je pense que y a problème euh, lu ñuy wax euh, recom euh, regroupement wala wala recomposition pour man. Mhm. c'est vraiment le temps de de réfléchir à l'organisation. Mhm. suñu suñu faiblesse ñun c'est c'est lié. on on n'apprend pas l'organisation so soo gisee sax la pagaille entre guillemets qu'il y a au Sénégal c'est parce qu'on n'est pas organisé. on n'est pas si tu n'es pas organisé noo mën a am discipline. Mm-hmm. bah si tu n'as pas de discipline noo mën a am programme. à partager et je crois que pour revenir encore pour terminer c'est-à-dire que différence bu am euh, muy législative bi di ñëw muy présidentielle bi c'est l'organisation. tout tout à soo amul organisation mënoo am projet mhm. et day nekk une histoire de bon comme ils l'ont dit ah saa nga yaakaar élection que nit ki la nga ñëw tu as zéro zéro zéro zéro. Ah, se passe au Sénégal ñun dañu. la ñuy def. gis nga Maria l'affaire. si soo amul un bon appareil organisé mënoo dem ci élection. loolu. pexe boo demee itam da soo ko demoon da ngay loolu ñaari parti ñoo ko fi amoon au Sénégal muy le PS balaa muy tasaaroo ak la ak le PS ah. balaa muy tasaaroo ak le PDS PDS dafa garder loolu malgré nit ñi jóge nañ fa dem daf ko garde mhm. li ko may chance mooy day dem élection contrairement au PS waaw PDS moom lu mu métti métti mu dem lu mu métti métti le PDS day na toog dem élection muy locale muy législative présidentielle dañ leen koy xaj mais le PS dafa bokk ci biir coalition demakul base bi day effrité wu. Mhm. maintenant jàpp naa ni ils ont compris parce que le PS tase nañ jot nañ tase xalifa ak euh, Aminta ñu ànd toog waxtaan xam naa ils sont en train de travailler sur les retrouvailles parce que jàpp nañ ni xam nañ ni su ñu war a dellusiwaat il faut ñu am appareil bu taxaw. parce que mënoo am maison du parti bu toll ni maison du parti bu PS. te doo te doo leen tase pour mën a am appareil bu taxaw parce que élection appareil moo koy gagné. Mm. et le PS le PASTEF la l'a compris. Mm-hmm. ba ñu jógee ci élection présidentielle ba am 15 pour cent la ñu xam ne dañu war a def maillage territorial. Mm-hmm. ñuy organiser seeni cellule ci biir gox-goxaan yi de vingt cinq personnes. Mm-hmm. c'est comme ça que lañ def ba am appareil au niveau national bu taxaw parce que ils ont compris que élection appareil moo koy gagné. donc ñooñu noonu la ñu def et puis c' la même chose que la la perle avait fait ba ñuy nekk opposition ils ah, avaient monté des comités de cent personnes dans les quartiers mm-hmm. mais une fois arrivé au pouvoir loolu dafa effrité wu maintenant comment faire pour conserver cet appareil la c' la question boo xamante ni waa Pastef war nañ ci réfléchir parce que ils sont au pouvoir le PDS war nañ ci réfléchir plus les partis libéraux pour conserver cet appareil parce que ku ci nekk ci ñun ñoom dafa am foo jóge maintenant lu beneen réflexion bi doyen mooy la création des partis politiques. loolu war nañ ci war nañ ci gën a waxtaan. Mm-hmm. parce que un pays comme le Sénégal trois cent et quelques. partis politiques waaw est-ce que waaw xam nga c'est vrai amoo soutien gars yi quoi. waaw man man dañ la xaw ñoo la njëkk a kii moo tax benn soutien gars man buy doyen. man waa PDS sax buñ ma jëloon <laughs> c'est vrai ah. ñoom nag c'est que xam nga aussi man libéral la voilà xam nga xam nga aussi la création des partis politiques war nañ ci mën a réfléchir. Mhm. parce que nger mer ngemb bi dafa bari. torop PDS tasul de. non dama ñi ca jógu ñëpp. dañoo mer nga moom laa la bëgg wax bëgg wàññi dooleem nga wax ko. waaw moom laa la wax saa à dire mer ngembu la. c'est dafa am ñoo xam ne waxuma mer ngemb de PDS moom le cas du PDS. waaw bokkul par par ak yenn yenn parti PDS ñu bëri dañu perte pouvoir bi. ragal moom laa la wax dama leen xam nga lu ñu doon ragal dañu doon liste yooyu ñu doon wax ak menace ak yooyu moo tax ku nekk daal fu ma waxee sa mouvement daal di génn Macky Sall est issu du PDS Macky bien sûr Idrissa Seck issu du PDS dañ leen a dindi seen position ñu daw créer ji parti pour ñu accéder au pouvoir soo accéder wul sa pouvoir parti bi day disparaître loo gis ci réew mi friction le PDS restera intact aujourd'hui l'APR aujourd'hui l'APR à l'opposition ñaka a créé de 2008 à 2012 seront dans l'APR mais ñu ñëwoon wàllu si dañuy dem seen yoon tout à fait ñi ñëwoon wàllu yaan ca PDS ña ca bari dem nañ seen yoon ña créé seen parti ñoo fa des donc su ñu bëggee maintenir affaire yi appareil yi ña créé seen parti nga xam ni du ndomba tànk moo leen di tax a jóg du prestige du prépare du strapontin moo leen tax a daw ñoo ils resteront dans le parti. ok donc loolu su ko parti yi mënul réfléchir mën ko téye ci programme rek lay doon. dafa am fu PDS tolloon ci jamonoy élection yi avant ñuy dindi candidature euh, Karim Wade. d'ailleurs maa ngi nuyu suñu suñu papa Doudou Wade mu ngi lay mu ngi mu ngi wax sànq di préciser nee na euh, Karim Wade n'est pas l'accusateur ce sont les députés du PDS qui euh, qui avaient accusé Amadou Ba pour muy leer dafa def tweet Karim pour muy leer nee na daal les députés ñoom ñoo ñoo accusé wu maa ngi koy nuyu sama doyen waaw di nuyu Mame Diarra Ndiaye Sobel aussi ñu ngi leen ñu ngi leen di nuyu ñëpp ñeen ñuy seetaan donc je pour revenir à ce que je disais dafa am fu tolloon ci opération ñibbisi moo ma ko delloo si waat sama xel Adama Fall mm-hmm. ñoo nekkoon les li jiitu ci PDS loo xamul ma jox la ci information am na ñu ñibbisi ñoom ñi sax wax nañ ma pour ma ñibbisi <laughs> ah pour mu bokk alama nag yow tamit jógal ci sa bopp <laughs> ci PDS lañ bokk jógal ci sa bopp ci sa bopp fan la toll ak fi mu nekk nii jamono ji léegi nag tout le bi bi bi bi président yi ñëwee au pouvoir ñëpp dañu toog ni la euh. alhamdulilah léegi kon nag léegi Karim dina ñibbisi mhm. lan mooy problème bi ba Karim ba tey waaw xam nga ñibbisi moom ñoom Adama bu ñu ko bëggee. dina ñëw opération ñibbisi moom foofu la war a ñoom Adama Fall bu ñu ko bëggee dina ñëw bu ñu ko bañee dina ñëw. Ah. parce que nous sommes la force vitale ñun ñooy yaakaar réew yaakaar réew <laughs> te comme ni mu ko waxee. doyen doyen wax ko léegi. waaw te moom sama moo indi analyse boobu ñi tasoon yépp ngir wuti leneen fa ñu nekkoon dara amatu fa. Mhm. dara amatu fa pouvoir lañ doon wuti ils étaient dans des positions de pouvoir. ils vont ils vont perdre pour ne pas dire qu'ils ont perdu tous ces tous ces pouvoirs là. Mm-hmm. ils vont ils vont migrer encore le seul espoir qui se c'est le c'est de revenir à la case départ wala dafay wax ni. Mm-hmm. soo xamul foo jëm. booy jógee di dem te xamatoo foo jëm da dëpp nga ñëw sa kër bàyyi. man mm-hmm. <laughs> je leur lance un appel solennel et fraternel en leur demandant de revenir carrément euh, chez nous au Parti démocratique sénégalais ñu continue la lutte. te xam ne yaakaaru askan bi fii la nekk. yaakaaru réew mi fii la nekk. te li ñu xal ci réew mi doxal ko ci réew mi 2012 ba keroog ñu perdre pouvoir bi amagul keneen ku ëpp def lu ëpp loolu. Mm-hmm. suñu tànk la ñu jaar. Mm-hmm. donc vraiment nous étions sur la voie de dina d'une de de de démocratie et de développement. Mm-hmm. loolu vraiment ñëpp seetlu nañu y compris nos adversaires les plus atroces ñëpp xam nañ loolu. donc référentiel boobu moo valoir tey PDS taxaw. te PDS nag xalu ndéef la ndem si yàlla suñu xorom. Ablaye suñu xarit Ablaye Fall yàlla na yàlla moo ko doon loolu. Mhm. mu ne per si xalu la. xalu ndéef mooy xal boo xamante ni cendre bi ndéef bi. Mhm. daf waaye boo ko jógee daal di tëb. Mhm. ne sera pas mort il est debout. il est prêt te loolu c'est extrêmement important donc vraiment li ñuy demander ak di ko ñaan mooy y a pas de complexe. fii seen kër la. ñibbisi leen kër leen na ñu ñëw. <laughs> ñu àndaat ñu waxtaan. defaraat suñu parti bi. Eh, dellu leen defaraat suñu parti bi <laughs> continuer liggéey. doy li dawal ay nekk fii di wër wëraan yooyu ay ay caaxaan rek na ñëw fi lii la ñu xam. Mhm. Abdoulaye Wade la ñu xam mooy suñu bayjur. mooy mhm. suñu pap mooy suñu mhm. idéologue. mooy suñu njëwriñ. mooy suñu xalif général politique. macha allah macha allah na ñëw ñu ànd ak suñu frère Karim Meïssa Wade chargé de stratégie ñu dal di doxalaat parti bi ñu dal di dem suñu yoon. man c' est que je fais à tous mes amis de façon fraternelle parce que réew lii moo fi nekk. waaw kenn du leen xoolee ñii kat fi lañ ne ko fa lañ demoon non y a des qui sont revenus des anciens ministres. ku xamul daal des anciens députés. ku dem ba xamatoo foo jëm da ngay dellu fa d'autres personnes qui étaient membres du parti qui étaient restés euh, stationnaires. mais qui mm. nous ont mm-hmm. mm-hmm. un seul bloc nag. def ko benn say nañ ko gëm buñ ko gëmee rek ñu daal avance avancer ñu daal di am ndam. Karim kañ lay ñëw. Euh, ñëwam. xam na ne agendaam personnel am. kañ lay ñibbi problème la agendaam personnel am moo ñu ko mën a permettre xamu ko ma agendaam waxuñu agendaam mais ñëw moom si agendaam la dépendre. parce que dañuy dégg sénégalais agendaam la dépendre ak également ci parti démocratique sénégal yi ci kaw moomu jàpp agendaam wax leen wax PDS ni tel moment lay ñëw bu ko ñu préparé ko mais mënaguñu leen wax exactement le moment. maintenant da ngeen moom rek moo yor agenda da di opposé wu wala da ngeen di. mais kooku le parti le définira. parce que ah, ak élection yi base léegi le de le de euh, le 2 euh, avril, le président Diomaye prête serment boobu ak léegi dajaguñu en séance de de réunion. Mm-hmm. en en en en direction pour waxtaan def évaluation pour xool mais il est important incha allah yàggatul dinañu daje notre sein ñu waxtaan bu baax a baax def évaluation c'est la conduite à tenir. Mm-hmm. mais fii mu nekk nii mën nga ma la wax exactement su ko doon faire su ko faral am naa sama am naa ci xalaat nag mais xalaat boobu ca. foofu nga koy foofu nga koy waxee d'accord euh, doyen li may wax léegi xam nga Sénégal dafa am waxu banc public waxu mbedd. Mhm. donc avant ñuy teg gouvernement bu bees bi les gens disaient que euh, que ñoom dinañ woo Karim Wade mu ñëw bokk ci gouvernement les gens les gens s'attendaient plus à ce que Karim dugg ci gouvernement bi. Mhm. que sax keneen ku nekk biir PDS. ba tey jii xamuñu Karim kañ lay ñëw dañ ne woon affaire kayit la ñu ne kayit yi lijjanti nañ ko après ñu ne léegi agenda lañ ñuy wax bu yàggee dina am leneen muy niróol quoi est ce que PDS mënuñu jël aussi ñu xool beneen numéro 2 boo xam ne dinañ ko mën a. waaw beneen nit quoi beneen nit. pourquoi pas lui. mais pourquoi ngeen bëgg PDS jël beneen nit. mais ñun ñun ñun. par rapport à par rapport à la situation. mais ñun nit ki ñu jël def ñu doy. on est d' accord def Wade daf ñu doy sënkam am une expérience d' état avérée am un portefeuille extraordinaire macha allah sur le plan international ak wane wane xarañteem mu doy ñu mu nekk ci mu nekk jeune ñi fi xëccoo yépp ay maas la ñu wala sax ñoom ñu mag ko. dégg nga nekk jeune un jeune dynamique compétent intègre macha allah donc bu leen ñu seetloo keneen. ñun PDS kenn bu ñu seetloo keneen ñun ñooy seet ka nga xam te moo ñu doy ñu sàmm ko jël waaw noonu wax naa leen sànq en politique yàlla la patience wax naa leen ko sànq. ok notre fondateur national du PDS. a a il a il a il a il a lutté pendant vingt six ans avant d'être. mais est-ce que loolu pourquoi nous ses fils <coughs> mënuñu mënuñu am ok il faut qu'on ait la même patience il faut ñu gëm ko. d' accord bu ñu ko gëmulee nag c' est pas la peine du tout. d' la foi ne ment pas. d' moom ngeen gëm. nañ bàyyi lu ñu rek bàyyi lu ak Karim ba keroog muy ñëw ba keroog muy ñëw bàyyi nañ leen bàyyi ak Karim kon kon doyen waaw non disons que PDS c'est c'est vrai c'est un bon exemple ci euh, ñaari fan par mhm. exemple en tant qu'organisation c'est ça la force du PDS mooy lu ñu wax euh, l'appareil bon euh, deuxième facteur bi c'est l'identité Euh, un parti euh, dafay am identité comme nit ki ni muy amee carte d'identité wala ni muy amee influence le, le parti c'est les deux piliers son organisation et son identité mm-hmm. et loolu bon je crois que PDS c'est un bon exemple euh, pour pour le pour le prouver maintenant la difficulté yu ñu am c'est c'est vrai que y a l'organisation c'est vrai qu'il y a un appareil c'est vrai qu'il y a une identité mais il y a l'image Ah. Aujourd'hui, l'image du, du, PDS est perturbée. Mmh. Elle On a, mmh. on a l'image du secteur général Ouad, le, le, le, le fondateur. On a l'image de Karim. C'est les deux principales images. Mais on n'arrive pas euh, à trouver la cohérence. Mmh. la, la, personnalité du PDS est un peu perturbée par ça. Mais là, euh, je ne comprendre. Ils sont assez intelligents, assez expérimentés. C'est-à-dire Karim, c'est le candidat de l'appareil. Mmh. C'est pour ça qu'ils sont constants, ils ne varient pas. Hein, ah, euh, C'est le candidat du, de, de, de l'appareil. Mmh. Maintenant, euh, la personnalité reste Abdoulaye Wade. Mm, mm. ñoom c'est le choix qu'ils ont qu'ils ont fait ils ont peut-être raison hein, que, mm. que Karim pour moi euh, c'est c'est le candidat peut-être de, de l'avenir du PDS mais mais l'appareil l'identité la le, la personnalité de Wade il n'y a pas encore un héritier c'est ça la difficulté du PDS c'est ça ils ont un candidat mais ils n'ont pas l'héritier de Wade et tu, tu as de euh, tu as un problème de cohérence c'est que Karim c'est le candidat mais il n'incarne pas l'identité PDS c'est Wade qui, encore une fois, euh, l'identité du PDS, c'est Wade. Mmh. Bon, ce qui euh, pour moi, euh, en tout cas, si on se met dans la perspective de 2029, euh, c'est que Karim le candidat du PDS. Hein, il a 5 ans, il a... Hmm. tout cas, qui va euh, perturber le jeu politique parce que c'est la principale victime du de, de, de, de Macky donc loolu moom dina tax mu nekk candidat en deux mille vingt neuf mais là le PDS pour man bon il faut il faut que le PDS réforme. il réformer le PDS. ils ne peuvent pas rester euh, non sourds à, au contexte. de l'après Wade. il faut je pense qu'ils doivent réfléchir sur l'après Wade. Mm-hmm. Euh, loolu réflexion de la laaj mais Sénégal yi aussi xëy na loolu la ñu xaar ci PDS. Mm-hmm. c'est-à-dire que euh, il y a un vide. Mm -hmm. c'est la même chose qu'on a eu avec le le PS hein. Mm-hmm. Et on risque d'avoir le même vide avec la paire. La la paire, tout à fait. Mmh. Tout à fait. Ça, on va vers un grand vide là, euh, des, des grands partis. C'est pour ça que je ne suis pas tellement inquiet par euh, le nombre de partis. c'est-à-dire ku nekk taxawal sa parti pour man j'ai pas de problème à ce niveau mais par contre les partis historiques ñi nga xam ne lu leen tax jóg c'est le projet politique hmm. c'est eux qu'on doit protéger hmm. c'est-à-dire nit ki mën na am sañ-sañ nekk candidat à la présidentielle mais Pastef hmm. mais donc parti politique je pense que war nañu delloo quand dans les on doit revenir aux traditions politiques que, que un parti politique c'est pas une personne wala deux amis deux pelés trois tondus nga ne tu tu un parti tu es secrétaire général nga bëgg on te met sur le même plateau que les gens qui ont 40 ans 50 ans d'existence c'est pour moi honnêtement c'est là où la volonté politique manque mmh. Mmh. gis nga rationalisation bi mais c'est une autorité politique qui doit décider mmh. mënuma wax ni que ils sont 17 en <laughs> maa ngi dem 2024 ma ne ñoom ñëpp ñoo yegg yem yem. mais yemuñu. il faut faire un choix. il y a il y a un parti libéral il y a un parti socialiste. il y mm. parti patriotique. Mm-hmm. on a quatre courants. Mm-hmm. Mm-hmm. on a quatre courants notre état ne peut pas supporter vingt courants quarante courants c'est c'est pas vrai. donc loolu je pense que laaj na courage Senghor il a eu le courage. de dire que quatre courants la. mais ñun il faut ñu ñeme aussi ah c'est-à-dire ñuy ñuy par exemple jusqu'à depuis ce matin on ne parle que de socialistes libéraux et patriotes mm-hmm. bah est-ce qu'on a entendu d'autres courants euh, il peut être des républicains <laughs> la vous êtes dedans vous êtes dans le libéralisme yéen ka xam yéen sax xamatu na fu ngeen taxaw soit vous êtes libéral non je veux dire que mm-hmm. c'est l'idée le parti man nga am une idée de par exemple en matière d'éducation mm. tu dis que je crée un parti qui va travailler sur les questions d'éducation. keneen ñi na sur les femmes. keneen mhm. ki sur l'économie. Mhm. mais loolu tu es libre de formaliser ton mhm. projet. man na ngeen nekk cent deux cent et cetera. mais par contre pour me reconnaître leen man en tant qu'État. man am ministère de l'intérieur. su ngeen ñëwee avec deux poli trois tonnes je ne vous reconnais pas du duma leen permettre san ngeen participer à des élections locales législatives présidentielles. c'est ça il faut il faut régulariser. il faut une fermeté il faut avoir avoir politique. et même par exemple le financement. waaw day métti mais comment tu peux comparer financer PDS ak financer quelqu'un qui n'a même pas un an deux ans. quand quelqu'un qui n'est jamais allé aux élections ak ak bi ñu am ci xaalis bi ak xaalis bi xaalis bi yëpp yëpp yëpp lu ñuy déposé caution yi. c'est-à-dire y a quelque y a des gens qui sont jamais allés aux élections. waaw affaire bi war nañu xoolaatee muy indi indiwaat blanchiment d'argent bi ñuy wax ak yooyu. mais bien sûr garaaw na de 30 millions. xam nga man gis nga gis nga sans compter li ñu génnee pour campagne. tout à fait ah oui. xam nga man réflexion bi ma bi ma doyee andil. moi j'ai fait la lecture ci. dafa am loo xam ne dañ ko tàmm. rapidement il reste juste 5 minutes identité identité bi. moo daan nekk président de la République au Sénégal. Mm-hmm. li du PS c'était le c'était Senghor moo nekk président de la République l'identité du PDS mu nekk président de la République l'identité de l'APR c'était c'est Macky Sall. Mm-hmm. cette fois-ci l'identité de du PASTEF n'est pas président de la République peut-être ñoom mën nañ li dal yeneen parti yi mën na leen bañ a dal après la succession. Mm-hmm. parce que excepté le PS. le PDS avait un problème de succession au secrétariat général tey parti bi Macky Sall est toujours président du parti daf ko tayale l'identité de l'APR ne pas le candidat day andi limite pour la gestion du parti l'identité du PDS n'est pas le candidat et on sait que l'APR n'acceptera pas que Amadou Ba est-ce que tu comprends non non non non non non mën nañ ko sax accepter suba mën nañ ko sax accepter suba mais aujourd'hui pour gën a jox doole le PDS identité bi moo waroon nekki le secrétaire général du parti ci li ma jàpp pour permettre de maintenir l'APR et de travailler sur pere même si. le PDS. waaw le PDS même pour l'APR. Mhm. même pour l'APR suba su nekkee président Macky Sall nag du dellu si waat parce que am na ci ñoo xamante ni sont dans l'APR et s'identifient au président de la République Macky Sall. mais parti politique warul demee noonu. on doit s'identifier loolu mooy est-ce que tu comprends ah, donc suñ ci nekkee suñu defee ci réflexion yooyu mm-hmm. am courage politique peut-être problème yii ñuy wax nii du am mm-hmm. parce que PDS c'est Abdoulaye Wade qui est secrétaire général depuis très longtemps et jusqu'à présent on a un problème pour sorti ko mm-hmm. maintenant il faut waaw il faut aller vers les pour man pourquoi oui il faut ah, parce que aussi xam nga xam nga rupture xam nga rek ñi nekk au pouvoir dañu wax rupture te normalement soo nekkee ci bopp secrétaire général parti nag soo nekkee soo defee deux mandats war nga mun a abale nag keneen ñëw pour donner de la chance à d'autres et renouveler le personnel politique man loolu laa jàpp. d'accord Adama rapidement. parce que waaw euh, euh, ma écouté merci may wax foofu rek. bu simple nga nga ramassé gaaw ñu. waaw nañ ñu bàyyi ak le président Abdoulaye Wade qui est un baobab pour nous. Mm-hmm. moom gannaaw yàlla moom moo ñu tettee te moom mooy suñu climat. Mm-hmm. kon ñun xalaatuñu benn yoon. changer ko indi keneen wala leneen s'il y a des réformes à faire au moment opportun dinañ ko def c'est clair que il y aura des transformations parce que nous allons quand même suivre la marche du pays mmh. la marche politique surtout nous allons imprimer notre tempo il n'y a pas de problème à niveau mm-hmm. mais kooku c'est un travail interne que nous allons faire mm-hmm. nous allons intérioriser tout cela en nous te le moment venu nous nous retrouverons certainement en, en congrès pour régler toutes ces questions, toutes ces ces mmh. problèmes-là. Donc ne vous en faites pas, mais nous sommes très conscients le président Abdoulaye Wade beaucoup pour nous et il compte beaucoup pour nous, et mmh. non seulement pour nous, mais pour le Sénégal et l'Afrique. merci beaucoup Ba muy suñu gan tey euh, di euh, membre comité directeur du PDS donc euh, am yaakaar ne xanaa leer na dañu bëri leer na tey. waaw fi ñu leen di xaar moo bëri dani mu Serigne Saliou baax a baax a baax. li ma <laughs> daf ma koy tooñee nee na ma yow da ngaa bëgg Ablaye Wade booy wax sax dañu xam naa yow bëgg Ablaye Wade moom rek laa bëgg waaw moom rek laa bëgg. <laughs> doyen. doyen merci ba à demain incha allah. merci beaucoup doyen moom monsieur Albert Adama Fall. waaw merci di nuyu Aziz nee lu tax ñu ñuul. Abdou Aziz parce que dafa def remarque bi ci plateau ñëpp ñuul ah ah, moom bu la dafa def remarque nee na ñu tax ñun ñett ñi ñu sol man maa ngi xaar donc ñu ngi lay nuyu Abdou Aziz. ah oui ah oui. <laughs> ñu bëggee bu baax a euh, wér a wér a wér conseil économique social environnemental ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ñoom ñëpp di nuyu le président Abdoulaye Daouda Diallo di ko bëggee baax a baax merci Assane Ba. merci beaucoup merci, merci beaucoup. vraiment merci merci à tout le monde. jërëjëf di leen remercier bu baax a baax euh, remercier la régie aussi on vous donne rendez-vous demain inchallah pas dans 11 heures.